voté. ndogu jubilé madame. vote? voté. jubilé. Sonko. Sonko promotion la laaj président. am ñaar date am ñaari date. Xama ñun ñoo ñoo fi ñun ñoo fi ñoo fi ragal duñu kaw kanam rek ndam rek premier tour. 75 pour cent. même même même 25 bi sax dañu ko xeeb. non kan mooy Amadou Amadou mooy kan. Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko Amadou mooy kan. dund mooy euh, nit koo xamante ne dafa nekkoon ci aw yoon. ba nekk ci dernier virage. waaye ànd ak coono. ànd ak xiif ànd ak mar. waaye nag am détermination bu toll ne ne ala mikk dinaa àggale sama yoon. ngir la ca sunu kanam. su ma ca àggee ba jot ca. ñi ma bàyyi ginnaaw ñëpp mën nañoo. nekk ci jàmm. loolu mooy misaalum Pastef fi may wax a yow nii. fan jóge sori na yoon wi metti woon na bari woon na deret ju tuuru ñaq mu tuuru rangoñ yu tuuru waaye nag fii ñu nekk mooy dernier village li am solo mooy Pastef dolli vigilance dolli engagement ba ñu àgg nag ci le 24 mars maanaam daal di entériner sunu victoire génn Sénégal ci guute gi nga xamante ni ca mm-hmm. maanaam daal fii may wax ak yow nii dama mel ne

ndax moom moom mooy jomaay euh, jomaay moom mooy moom mu taamu ne euh, mu taamu ne ànd leen ak jomaay ñu fas yéene ànd ak moom campagne électorale campagne fi campagne bu neex bu sedd bu nekk bu dal ñu ànd si nag ak moom ñu gis nag programme bi aussi mu am lu am importance yoo xam ne luñ ci boole muy les personnes à mobilité euh, réduite jox ñu jox ñu si sunu wàll ñun ñun ñu def ak ñoom cent trente si mbirum wàllu handicap umpale waloon ne les handicapés sénégalais sont discriminés exclus mais nag yàlla baax na ba ñu amee ku mel ni Sonko. boole si si biir projet bi par rapport ak euh, programme ni leen euh, indee ay njàppandeel. waaw euh, programme bi moom ñun moom am nañ ci wàll gis nañ suñu bopp bu baax a baax a baax a baax. xam nañu moom bu jomaay eh, jëlee réew mi incha allah situation handicapé dana changé ci eh, eh, Sénégal surtout nag xale yi nga xamante ni ñoom ñoom handicap ñu gis ne Sénégal fii benn centre handicap rek la ñu am muy centre bu Dabo ci biir programme bi nee na dëkk bu nekk région bu ci nekk danañ fa defar benn centre boo xamante ni xale handicapé yi fa la ñuy dem ñu leen fay xool di fa saytu di jox seen àq di jox seen yelleef ne nga bañ yegg bañ génn bu ñuy génn bu ñuy génn rek bu ñuy génn rek daañu leen wax bu ñuy génn bu ñuy génn may leen ñu tuuti rek. bu mel ni surprise day am. muy symboliser njub muy symboliser jël sa bakkan ak sa addina ak sa carrière ak sa njabar ak sa famille jox ko senegal jox ko ko nit li am solo mooy projet bi am solo mooy projet bi ñu défendre bi ñu bi ñu wane démb pour ñu am ay instruction institution yoo xam ni. dañoo dañu dañu dañu respecté sénégalais yi li ñu wax ñu bind ko ci kayit gi ci document bi ci constitution bi ñu respecté ko mais aussi pour ñu am Sénégal boo xam ne li ci réew mi ñu moom ko sénégalais yi jëri jëriñoo ko moo tax dañ naan nañ jiital Sénégal ak intérêt Sénégal balaa ñuy def keneen muy ci contrat pétrolier muy ci contrat mu ci ndox mi mu ci suuf si mu ci géej gi mu ci lépp ñu fexe ba doomu Sénégal yi di dox ci Afrique ñi dëkk bu indépendant bu am de la bok, la tête haute d'être fier d'être sénégalais parce que tamit loolu la ñu mëna a loolu ñu mën xamé xamee dañ ko yàq ba mu yàqu yàqeet ñuy wax ni tamit té dañu campagne pour boomu xol tapé xol yi la ndax li metté métti amna Sénégal suñu doom yi bare rey nañ leen ñu bare tëj na leen ci kaso yi kon tey tam dafa ni dañu ni Sénégal yëpp tey ñoo taxaw pour injustice bi pour la première fois ci histoire ñi ay candidat yoo xam ne dañu leen suñu candidat mi ngi kaso suñu leader mi ngi kaso météo Sénégal yëpp ngi ñuy xaar Sénégal yëpp ngi naan Sonko namm naa la

parce que war nañu may sénégalais seen jàmm euh, ñoom depuis booba ñu ngi jaay euh, candidature koo xam ne kenn mësu koo dégg kenn mësul wax ne mosul wax kenn ne moom bëgg na nekk candidat ñu fexe ba Macky Sall euh, annulé woon élection yi tey jii bu nit ñi taxawee ne Macky Sall na jël date comme ni ko conseil constitutionnel waxee laata mandat bi di jeex mandat bi le 2 avril lay jeex. mu jàpp ne le 24 lañuy lañuy lañuy amal élection ñu xam ne dina tax euh, euh, campagne électorale bi ñu wàññi ko d'une semaine malgré tout ni ñu bëgg a dem élection parce que sénégalais yi nee nañu ñoom seen app ak Macky Sall le 2 avril lay jeex nañu bàyyi nit ñi ñu dem élection leneen luy am après bu ñu toogee ñun entre nous mun nañu xool nu ñu koy defaree mais jamono jii moom euh, bëgg a dugal ay recours ma ja ma yaakaar ne loolu waxu ku daanu saret saret la tout d'abord je féliciter madame la présidente elle a été désignée comme euh, superviseur général de la coalition Diomaye président man ma la coalition Mimi 2024 Nous responsable politique euh, Grand Yoff donc ñu Nek euh, la coalition 2024 donc sommes sargal parce que la madame la présidente nous désigné comme superviseur général de la coalition 2024 donc Mm-hmm. par rapport ak seen seen alliance ak Diomaye Faye gis nañ ko ñeneen itam ñu ngi ñëw euh, lan moo ko mën a justifier par rapport ak tey seen ancrage ci biir opposition sénégalaise waaw tey boo gisee loolu yëpp Sénégal xam na ko te xam ngeen ne Mimi Touré bi président Macky Sall di fokkati mandat am président Sonko moo ñëkk a jug jàppale ko donc loolu day créer fraternité ba nga xamante ne ak Sonko dañuy dem ba doon benn donc tey Mimi ak Sonko mun naa wax ne ay doomu ndey lañu

mu nekk femme de principe ba pare ñëpp xamee ko si terrain kon tey vraiment ndam la ñun ñëpp kontaan depuis fajar ba léegi ñu ngi ci. 70 ëpp naa ko 73 ans la am. 73 ans man yaayu Sonko laa fii laa dëkk man ci cité bi la dëkk. man bi ñuy tëj ci bokk naa ci ñu ñu tejoon fii ci biir cité bi 55 jours ñu tëj ñu. tey ñoo libéré man bëggatuma fi benn oto sax di fi romb. bu fi benn oto romb nañ barricade cité bi loolu la ñu wax tey cité bi ñoo ko moom. tey mbedd bi ñoo ko moom nañ bari. Nous démarrer une campagne Nous avons démarrer une campagne euh, euh, président te Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Nous te dañuy gagné dañuy gagné waaye nag dañuy vigilant rabil alamina élection loolu la xale yi avons xeex kon bi dañ la jeunesse sénégalaise qui s'est battu vaillamment voilà amni ci ñak sel bakkan ñooñu duñ leen mus fat leen continuer di ñaanal voilà kon euh, voilà absolument mais parce que Ousmane Sonko aurait dû être là c'est évident il aurait dû être là il aurait dû être candidat loolu la yàlla dogal euh, dañuy ñëw rendre ko hommage ak famille am nuyu leen ziyaare leen voilà dal di démarrer la campagne de Diomaye président di ñaan am am ndam am ci contenté am ci contenté bëgg ngeen gisé nga xam ne moom mooy présence ndaw ñi lan la leen gëna def. wa mé ndaw ñi ñoy Sénégal. 70 population Sénégal amuñu 35 ans yeen ñi la kon ñun bu ñu taxawé c'est pour vous. voilà ñu am contenté nak gis leen suñu wét suñu kanam eh, voilà parce que yéenay suñu doom aussi. Ah, ñu leen di siyaare bu baax baax di leen di wax ne tey dara warul jom. gaa yëpp nañ génn bii rek wane na dëkk bi ñun ñoo Mbaye naa dafa war a génn Ousmane Sarr dafa war a génn dégg nga bu jeexee rek na dëgg rek mooy dëgg dëgg mooy njëkk te mooy mujj ngoone ñu ngi lay ziar di ziar waa Sans Limites yëpp ñu jaajëfal ñëpp pour bu ñëwee nag day gën a gis ne ndeysaan ñëw nga teewul. waaw sa yàlla la xañ waaye yaa ñëw de sa devoir citoyen. dama ñëw si xeex ànd ak xeex bi ànd ak ñiy xeex. Sonko gaynde la moom lañ bëgg Sonko rek Sonko kese Sonko rek correcto.